j'espère nag ñu nga xam ne bokkuñ instance yi li xam ni nous vivons un tournant dans la vie du parti dans la vie du parti et dans la vie de la coalition le président Macky Sall a fait énormément de choses pour ce pays pour ce parti et pour cette coalition nous avons l'obligation quelles que soient nos divergences quel que soit lu ñu metti quel que soit lu ñu naqari de préserver cet héritage du président Macky Sall c'est le plus grand hommage que nous rendrons au président Macky Sall <coughs> moo tax ma bëgg ma ñaan ñëpp fàtte lépp ñu concentré wu li nga xam ni mooy ki fi président teg te ñun ñoo joxoon carte blanche président teg ko ci ak ànd ak leaderu benn bokk yaakaar yëpp ñu téye ci loolu préserver république après nag mun nañ toog xoolaat suñu parti après mun nañ toog xoolaat suñu coalition mais Sénégal moo sut suñu coalition Sénégal <laughs> moo sut suñu parti.